message may naan ko comme démb li ma doon waxtaan ak xaas moom wax dëgg yàlla gën tuba xam nga kilifa moom bu toogee wax la ay ay waxam te dëggu na li ma wax te tamit ba nga waxee gëm naa ko xam naa ne def naa erreur te sax damaa rus nag wax dëgg yàlla gën tuba xam man dañ maa yar musuma dépassé uma ma te démb yuuxu naa fii wax naa lu ma neex wër na yàlla moo tax gis nga jégalu naa ñëpp sax Ah, ok na jàmm bari si ñun rek walaay na jàmm bari si ñun ñu bañ a déglu waxi waxu nit ñi duma leen déglu sax jukkee nit ko ñu dama ko xam ñaar ñuy ànd la ñuy bañ ñaar ñuy ànd la ñuy naa naka suba si gis nga envoyé naa ki euh, euh, message may naan ko comme démb rek ma doon waxtaan ak wax dëgg yàlla gën tubar xam nga kilifa moom bu toogee wax la ay ay waxam dëggu na li ma wax te tamit ba nga waxee gëm naa xam naa ne def naa erreur te sax damaa rus nag wax dëgg yàlla jox ko am man dañ maa yar musuma dépassé uma ma yuuxu naa fii wax naa lu ma neex wër na yàlla moo tax gis nga jégalu naa ñëpp sax ah, ok na jàmm bari si ñun rek walaay laa si na jàmm bari si ñun ñu bañ a déglu waxi waxu nit ñi duma leen déglu sax jukkee nit ku ñëw dama ko xam ñaar ñuy ànd la ñuy bañ ñaar ñuy ànd la ñuy bañ gi jóge fii dem doxi sama soxla. tey jii ñan lan ngay wax ñi ngi ñuy wax naan da ngaa wéer ak yu kenn xamul. masumaa wax kenn wéer naa te kenn du taxaw ne wéer naa dama doon dama doon publicité vidéo ne euh, màggal ga laay dem ba léegi waxuma wéer naa sama kanam rek lañ gis te man nag mooy loolu dama yàlla damaa teg nattuwaay damaa bëgg àdduna damay nekk di defaroo affaire yooyu peut-être loolu moo tax mais ba léegi wéeruma maa ngi toog. sur place wax dëgg yàlla yonent ba mënu lu ma sama bopp dara fi ma toog lu ma def dañ ma koy defaral mënu lu ma dara sama bopp man man man man man puisque dama fi doon jaabante chaque jour di la mhm. euh, gis ni yow feebar bi changé mhm. su ma déggee ci internet bi nii da ngaa wér yoon la ma jaaraat fi xool ni sama malade ba moom mhm. wér na ma xool yi nu dëgg la yow loolu même sax bu ñu la waxee Fambaye wér na sax waroo ko mën a dem parce que bi nga fi gëjee yàggul gis nga man xanaa faj mënul doon euh, bi ñu ma gisee ma un mois ma dem rek du jour au lendemain ma jeex tàkk rek ñu ne wér tamit ah. bu fekkoon ne wér naa kon dama naan alhamdulilah rabbil bi ma teg samay waajur coono bi ma teg sama rakk ji di ma utiliser mm. kon dinaa jum taxaw dox ñi ba xam ne mën naa dox loolu fierté la si man te tamit xam naa ne ñëpp ñu ma bëgg ma wér dina leen neex est ay am na ay sénégalais yu lay jàppale fii ci réew mi ak bitim réew fii nii ci réew mi. Hakim jàppale ma ci leen. mbir yooyu doon dégg jot nga ko am na ñu la war a jël en charge yooyu fu mu toll. ah wax dëgg yàlla jant bi man ki ma jël en charge nee na ma dina ma jël en charge mais joxaguma dara. Ah. joxaguma dara wax dëgg yàlla mais. dina ko def sol suñu état ñoom tamit déposé naa sama kayit yëpp si ñoom maa ngi toog dina yóbbu nañ ma principal entré woon naa fa bi génn fay nañu lépp tamit ñoo ma teg fii lekk naan lépp ñoom koy jox sama waajur bu jigéen moom ba laa fi nekkal ak sama rakk bu góor ah ah. wax dëgg yàlla ni ma jógee woon daga naa noonu laa mel bi léegi dafa gën a yokk sax dafa gën a yokk wax dëgg yàlla te ku ma yaakaar naa ku doon wax wér naa wala wéruma ah. xoolee nii xanaa ni ma meloon laa mel di wut ndimbal wax dëgg yàlla gën te ba buur yee ngi nii te ku ma ci dimbali ma wér laa bëgg ndax nga am 25 ans toog nii benn place dafa métti. Uh-huh. te ku ma dimbali ma jug dem loolu laa gën a bëgg wax dëgg yàlla moo tax ñu naan dama wér ak wéru ma nañ xam ne wéru ma nañ xam ne wéru ma ma ñaanal yàlla ma wér wala ñuy jéem maa jàppale ma jug dem dox sama soxla